ñu duggee ci ak jàmm mu jeex ak jàmm te mbas mi bañati fee si kàttanu waaw xam nga nag li gën a metti mooy jël sa xaalis dugal ko ci ay événement événement yooyu taxaw metti mais lépp dañ koy sant yàlla rek am na ñoo xam ne amuñu ko waaw. non non amul benn problème amul problème parce que ñun ay commercant lañ dañuy jënd bagaas Euh, jële ko Chine wala Dubaï di ko indi des fois mu ay deux mois trois mois noonu loolu lañ koy jàppee rek waaw mais dañ koy jël rek transfert ko foofu benn la. man maa ngi jël vingt six décembre. incha allah rabi ak ak euh, le vingt quatre novembre ñaari date laa jël am naa desa benn combat bu amoon. bu ma régularisé woon muy fils de la général Malika moom laay njëkk tëgg damay xool ban date si tëgg si ñaari date yooyu euh, ndax fils de balle dafa feebaroon mais wér na dañu dina indi certificat guérison fii ci CNC. fils de balle général Malika laay njëkk a tëgg soo a tëggaat beneen incha allah. loolu laa dogee général Malika mu ne woon dootul bëreeti loolu nga ci gis. non dootul bëreeti mënul am xam nga contrat mënoo ci nekk CNC ba ñu régularisé ko cas de force majeure yaa am dugatuma ci foog nga àggale ko pare soo ko bàyyi. ñu gis ay coow am ci biir xëccoo dat yi lan moo nekkoon problème bi. waaw non bokk bëgg-bëgg rek xam nga ay nit buñ bokkee bëgg-bëgg xëccoo mënul ñàkk mais par la suite gis nga réglé nañ lépp kon sant yàlla alhamdulilah. pass sanitaire d' accord rek ak nangu xam nga boo nekkee ci loo xam ne moom la ñëpp d' accord soo bëggee. nga bëgg a liggéey di nga si d' accord dañ si d' accord ànd ci ak ñoom waaye. merci